asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu seen tuur ak seen sant di sant yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ci nuyoo bi ñu ngi ciy jiital suñu papa bu ñuy wax Père Diakhou sàll di ci teg suñu xarit boo xam ne moo ngi nekk ci ginnaaw Père jaxu di kenn ci ñun ku ñuy wax Pape Sarr di ci teg na coordinateur ki nga xamni kenn mënu ko tebb bokoy beut te diko ñaanal yalla fi mu tok yalla yagal ko fo ñukoy wax Modou Fall mo modon jël paray di wax sama suñu paré ci lolu ñu ngi gëreum comité national bi nga xamni mom moy liggéey avec le DG Siré nek ci Dakar di piloter ci 14 régions yi ci Sénégal di ci dox dox bu rafet ñu cité ci un nom ba nga xam ñu ngi koy wax Lamine Cissé Papa Lamine Cissé tek ci Béya Fall Eladji Fall ak Alpha Diallo moom mi nga xamni mo ñew ñëw teewal leen te mu ngi nii toog suñu jógee ci lolu ñu ngi gëreem suñu mbokk yi nga xamni ñoo ñu ñew wuyu ci te liko waral moy ñun ñoo solol suñuy dal dem fa séti leen massifier leen waxtaan ak ñoom quartier bi ci jitu moy quartier Jaxaw Kanda ñu ngi fi tok ñu tek ci quartier keur Cheikh Ibra Fall gi jégué ñu lool lool lool ñu jóge fa dem quartier bu ñuy wax quartier djung jugé fa kan fa quartier bo xamni ñu ngi koy wax quartier Ngent jugé fa dem ci quartier bu ñuy wax quartier Grand tiali jugé fa dem ci quartier bu ñuy wax quartier keur isa jugé fa dem ci quartier bu ñuy wax Ngent Nasru ñu ngi tëje suñu dem ci quartier medina Fall di len gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax parce que loolu yëpp buñ koy def moy pour jël dolli ci doole Sireja, Dia mi nga xamni mo tax ñun ñuy xey ak di gont pour manifestation bi li ko waral lu gatt la dañu ñew pour éclairciral nit ñi ubbi xelu nit ñi ñu xam li xew parce que ñun kër mom alaaji ak suñu mbokk yi nga xamni dem nañ ci ñoom paré guñu pour dem ci nit ñi élan lañu jëli pour dem ci nit ñi gëna a pour massifier les gens que ni li ñuy liggéey liggéeyu luñ ko ma sàmba liggéeyu luñu ko ma demba ci benn nit la jëm muy le directeur général de la groupe La pos muy Pape Siré Dia parce que tamit moom moo fi def lu kenn deful ku def lu kenn deful am lu kenn amul politique bi ñu jàngal mooy politique de discipline parce que moom yar la ko doomu aadama yi xamee xamuñu ko ci tëb di dal dafa dal dafa ko ànd ak moom boo mënul dal doo bokk ci rang yi kon nag ñun dañuy ñaan yàlla ñu dal lu ne dinañ ko gis mais dañuy dal te ñu xamal Pape sire Dia ka ni mouvement bi ñu yor di mouvement dooleel sire Dia ci ci kër ji moom alaaji et environ Thierno Faye jiite ko xëqatal taxu leen a daw ñu ngi ci ginnaawam suba ak ngoon guddi ak bëccëg tey lañ ko ko mën a gën a tey lañ ko ko mën a gën a dëggal parce que li tax ñu gën ko ko mën a dëggal mooy que ni politique ndaw mo koy def mhm. ak jigen gor ak jigen ci ndaw da bo xoolee ñu tok fi ñep so xoolee ñu tok fi ñep mhm. ay ndaw lañu politique bi xewon démb jamono sangor xewatul jamono ji Macky Sall xale bu ndaw la du dox ci allure bo xamni du lancer bu mauvais lancer bu extraordinaire la nek mais nak nit ta ñak wuju wuju yoy ñun ñoru ñu li ñu ñor moy ñu jéem ko liggéeyal liggéey boo xam ne liggéey bu set lay doon ci li ñu suñu kilifa jàngal muy Pape Siré liggéey ba nga xam ni élection yi ñu jëm muy législative ak présidentiel ñu jël ko jox muy prési législative bi mu jël assemblée majorité fa d'abord. suñu paree foofu bu ñu jógee ci assemblée daal di song pour jël ko ko jox ko mu jiite waat ñu pour 2019 à deux long terme ñoo xam fu ñu yem liggéey bobu lañu nek xey di dem ci nit ñi outal leen fu ñuy ude ak carte d'identité ak carte électeur d'abord bala nga jappalé nit ki da ngay wut arme bi nga koy jàppalee. arme bi moy lan da ngay dem nga wuti carte d'identité bobu ba légui ñu ngi ciy dox té ñu ngi ciy am ay djégo yu yo xamné satisfaire nañu benen bi moy que ni le jour de l'élection du 30 juillet dafa am lo xam dañu ko bëgg def mu nekk surprise ci le DG Siré surprise ci le DG Siré Dia xam naa caméra bi dina ko ko jox mais daf maa rëcc dina ko jàllale <laughs> parce que lu musul am lañ ko bëgg a defal mhm. fii ci kër moom alaaji ak ñi ma visité ji woon te mu dëggu ci ñoom ñu liggéeyal ko liggéey boo xam ni kër moom alaaji d'abord bay bay ci sa weewu tànk le jour de l'élection dama bëgg jël majorité école cœur mom El les sept bureaux de vote pour jël ko teg ko ci sama loxo DG muy Siré mu jël ko jox ko le président de la République muy Macky Sall ñuy liggéey di def rési muy def résultat bo xamni au niveau Thiès ba mu daj tous les responsables wax deug mo gën wax ay nar

te il faut que lolu ñu ñëmé ñu ñëmé ko wax pour le président dégg ko xamni jeune jeunes ñoo takku kon mu mën diriger Thiès yoré Thiès jigéen ñi ngeen sentir sen bop goor ñi gëna sentir sen bop pour que ñu jël falaat Macky Sall 2019. yeen dama leni laaj yeen ñu tok kan ngeen bëgg. kon jeex sa daxa